tàggat yaram basketball ab centre de formation sport étude moo juddu ca ànd bel coopération espagnole nag moo fa jaar ville de Dakar itam soob na loxoom nag ci projet boobule ay junni junni xale rek narka jëriñoo fédération sénégalaise de basketball nag di rafet lu lool lu ni mel tey jii ci suba lañ doon daloo projet boobule foofee ca Hann bel ci teewaayu Boubacar Cambelgien ak Abdoulaye Ndiaye la woon. léegi mën nañu jàng waaye it boole ci di def basketball ñi lee nag mooy ay gone tout tànk yi nga xam ni ña nga ca commune d' arrondissement bu Hann Bel-Air ñoom nag am nañu centre ba nga xam ne daan fa mën a jàng l'école di def tamit lii di basketball loolu nag ak duggalante bi nga xam ni Sénégal am na ko rawatina sax ville bu Dakar ak Espagne loolu moo ko jur tax ba nag ña ngi koy wooyee Casa España ci wolof moom mooy kërub Espagne tànnub Dakar nag ci yeneen dëkk yi nga xam ni daal ci Afrique sowu jant doon nañ ko yóotu tànn boobu lee méttiwul woon trop. y segundo porque Sénégal nos parece uno de los países. tànneefu Dakar bi méttiwul woon trop. ndaxte dañoo xam ni Sénégal dëkku sport la te ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk yàlla dafa am li nga xam daal daf leen ko may ci wàllu tàggat yaram bu baax xarañ boobu nag dañ koy gis ci ñi nga xam daal ñoom ñoo di Sénégal yëpp rawatina xale yi moo tax ñu taxawal centre bi te am nañ ci bu baax njort bu rafet. ñun daal li ñu def nii fii ci Dakar rawatina ci commune bu Hann Bel-Air rëccu wuñu ko. parce qu'il y a deux choses qui ont une la génétique l'éducation physique. waa fédération sénégalaise bu basket ci baatu seen président ak direction technique nationale sax ñoom ñi ngi rafetlu projet bi lee nee nañ nag dañ leen jàppale bu baax ci soqale basket bi jaarale ko ci tout tànk yi. ñii euh, base bi ñu nar a am pour jàng basket mais élite bi bu fi ko amoon amuñu woon sax base boobu donc je pense que dans. dans, dans, dans 15, 20 ans, on aura encore de super basketteurs, peut-être plus forts que ce que nous avons toujours connu. bu ñu ko calculer ba nga xam ne toog nañu calculer li ñu fi def ëpp na 300 millions parce que xam nga ne tabax yombul donc euh, et puis sans plus que xale yi fii euh, non seulement dañuy jàng ba pare te du ñu fay dara rax dool yi en plus fii la ñu añee. projet bi du du favoriser basketball d'élite projet bi dafay essayer xool xale yi nga xam ne quand amuñu beaucoup de moyen ñu xool leen comment aussi on peut les on peut les intéresser au basket tout en insistant sur l' social et sur l' éducatif maanaam yar xale yi à travers le sport parce que loolu am na mais ñun ci li ñuy falal def ñun on a plus tendance à développer le basket vers l'élite alors que ici c' est pas ça c' est pour regrouper les enfants les permettre de pratiquer le basket mais en instant ci aspect éducatif. maire bu Dakar naataangoom bi nga xam ne moo nekk ca commune d' arrondissement bu Hann Bel-Air madame l'ambassadeur bu Espagne ci Dakar ak yeneen i kilifa teewoon nañu ci xew boobu lay ña nga xam ne nag ñooy xale ya fa nekk fi ñu toll nii commencé nañu bëgg basket bi lool ñu ci bare nag dañu xalaat ëllëg ñu nekk ay champion yu mag ci basket bi lay. dañu ko defaral pour ñu basket. bu baax ñu jàngale. ñoo la ko defaral. tubaab yi. damay basket. basket lan nga bëgg a doon ci basket. champion. làmbu dimanche gi nara dox nag diggante guy gi ak Ama Baldé xëy na neex ba noppi bi ci guddi la ñu amal nag seen premier round ci jàkkaarloo bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci 2STV daanaka El Hadj Bekaay Mbaye mi nga xam ne moom la tuddee drapeau bi sax mënu leen woon a àtte Adama Kandé di ci dellusi. Eh, non non non fii bu ko fi Eh, eh, eh, bu leen ma. bal bi takk na combat bi dox diggante guy gi ak Ama Baldé ci dimanche bi commencé na ñaari mbër yi nag di guy gi ak Ama wane nañu ne kenn du may sa morom dara. Ama Baldé bi gañe woon drapeau El Hadj Bakay Mbaye ci édition bi weesu dafay ñëw pour yóbbuwaat ko Pikine. waaye est-ce que guy gi dina ko nangu lu ñu mënta jàpp mooy que ne premier round bi amaa bande gagné na ko ak tamit bataille psychologique des na mu confirmer ko dimanche lu ñuy laaj kay mooy est-ce que guy gi dina ko nangu. ne guy gi tànk yi baaxul na laaj ñi ko waxoon ne guy gi simple rek lay def dama koy cax boo demee nga tëdd nga xalaat ci loolu. samedi journaliste bu ko neex ñëw interview samedi samedi journal bu liste bu ko neex mu ñëw mu interviewé la combat bi na muy demee nu ma koy daane di nga ko wax di nga koy daane barki sëñ Sall dama koy duma dama koy émile naa ko duma daan ko barki sëñ Sall xarfa fuufa yi bari woon na loolu ci plateau 2STV yi ci diggante ñaari mbër yi lenn rek lañu ci ñaawlu mooy xeex yi amoon diggante supporter ñaari kan yi gannaaw bi ñu paree face fas bi loolu nag lañu ñu war a saafara laata dimanche ndaxte combat bi neex na ba pare waaye ñu jeex ci jam ak salaam moo gën lu kenn mën